bëgg a wax rek mooy. Mm-hmm. man euh, xamuma trop Omar euh, miinuma ko trop. Omar mm-hmm. Sow waaw Omar Sow. Mm-hmm. Euh, te je son courage ak yooyu waaye xam nga dafa am. loo xam ne nit ñu comme li ma sànq ci suñu aada. maanaam ñun dañu am ay aada. dañu am mbaax am aada. ñun suñu aada xam nga lan la. mooy tey li ma wax sànq nii ne. duo Jomaay ak euh, Sonko bu kenn ñaan mu nekk duel mm-hmm. te leer na ma ne Sonko muy Sonko di Jomaay mm-hmm. kenn ku nekk di nga di nga bay sa waar ba duyoo bañ a nekk duel ndax bu nekkee duel ñoom dañoo war a fenloo voilà ñoom dañoo ñoom ñoom dañoo war a loo ñi taxaw ne ne ne yëfi day yàq mm-hmm. ñoom kenn ku nekk am loo bàyyi pour ñu seen and ba seen and bi ñom ñaar dafa dafa ngëneel la ci ñep da la même manière tamit ñun Sénégal dafa am lu ñu gëm mhm. xam nga lu lu ñu gëm mhm. té lima la wax né rupture bi nga xam ni euh wa passé fi nañ ko té man ñima sékkal waxtaan ñep ci on politique dama leen wax né tout temps né leen na ngeen lu ba gore mhm. xam ne fii ñii duñ jël ben transhumant nak ku ne ku ne goré tok sa fa sa ruq bi nga tok bàyyi pouvoir bi doxal opposition gouverner de la même tamit ñun Sénégal xam lu ñu xamul xamuñu nga gërëm ba pare xalab xamuñu tamit tey ndax dëgg-dëgg Omar Sow bu ko Sénégal bu Sénégal moom lu mën ak lu mën a xew Macky sàll man mii am naa yu bëri yu ma ko merewee yow keneen ak keneen noonu ndax wax naa ne Sénégal ñun bu ñu leen et puis c'est normal nit bu ñu la falee y a des choses qui ne qui ne plaisent pas waaye yow mu tànn la mm-hmm. ci ay àddina ni junni nit parmi 18 millions de sénégalais yow nekkoon Sénégal xaw mi woon nga moo xaw ma benee mu jël la ngay xale muy jël la indi la dugal la ci nguur daf la ministre conseiller mm-hmm. loolu rek sag la yow di nga delloo ko sag tuddee ko doom bu dul dara mu xool doomam mm-hmm. ndax tey jii li ñaaw mooy ni mu nekkee nii lu mu xam mu wax lu mu xamul mu wax. day may fit ñeneen ñi sax waxuma sa day may fit ñeneen ñi waaye moom dañ koy ragal. kenn du ko wóolu kenn dootu ko gis nga Amadou Ba mii muy defaan ba pare xam nga li dala mooy Amadou Ba man lu ma leer mooy moom Omar Sow bu dee am na ci ci Amadou Ba dara. ñi ñi am na ñu ko ëppale ci Amadou Ba. Mhm. te ñooñu. fi ñu toll nii dañoo xaru noppi. Mhm. man na dama dul nangu nekk bayu nagu ke bayu saraxu kenn xaw ma euh, nagu saraxu. kenn du ma ko nangu. Mhm. ba pare euh, as gor day goor ci dara. man rus naa ni defal ma lu baax gis nga doodu mii moom dañuy tooñ ñii rek mais moom xam na fi ma ko teg ndax xam lu tax ma def ma teg ko fi ma ko teg doodu 2000 laa ko xam ba may doog commencé moo ma jiitu ci journalisme laa ko xam ba may doog a commencé may doog a commencé di xale bu tuuti boobu sama sama at bareegul laa ko xam moom mii Doudou Coulibaly mm-hmm. boobu tekkiwu ma dara stagiaire laa ma ñëw mu gis ma samay rasta mhm. ma ñeme ko moom laa may li ma loon nettali léegi mhm. deux mille bu fa ñu ngi si vingt quatre ans ah. mosuñoo xuloo mhm. mosuñoo warante mosuñoo lu ma neex la ñuy waxante te boob ba tey ni nga ànd ma jox ko cëru mag ndax daf dama dama am fu ma toll woon mu tàllal ma loxo gis nga ko ni doy na waar lool ku capable la mu ngi nii taxaw ku doy waar ku capable la ku am fit la ku ñeme la kenn xaju seen diggante suñu diggante kenn xaju si lu ma neex laa koy wax. Mm-hmm. te ci àddina. Mm-hmm. moom duudu su may doo du ma onk. Mm-hmm. parce que dafa am foo xam ne dama fa toll woon mu tàllal ma loxo xëcc ma. 2000 ba 2024 ñuy ànd ma nag moom mii sama mag. di sama kilifa di sama wóllëre. te rus naa tey moom maax xamoon dañuy royante dañuy xuloo de waaye. kenn du ko fekkee. Mhm. sama téléphone laa jël wala ñu toog fi ma ma ma ma raag ak moom dugg boîte vocale. moom ñu paree génn nekk ay xarit. Mhm. parce que man maa man je lui suis redevable. et je mhm. je lui serai éternellement redevable de la même manière aussi boo toogee boo gisee ma toog di wax ci Sidi Lamine Niass. di gis ma toog di wax ci euh, Youssou Ndour. li ma toog taxaw fi naan Youssou Ndour kenn du ko xas. sama kanam. ma fekkee maamu wute du ma ko nangu. ndax dafa am. lu ñu sekk man ak moom mm-hmm. nit as gor da ngay gor ci dara mm-hmm. ndax nit bu la defee dara nit nit am na loo xam ne boo ko nit mu def la ko ci teranga rek mm-hmm. lu metti ak lu metti metti metti metti yow xoolee ko lu baax li mu la mës a defaral waaye toog ci télé di wër di yàq Macky Sall te xam ñi ku xam ci Macky Sall Macky Sall tey la bon waaye ba mu ba mu ba mu baaxee waxoo bu ko bu ko leeroon ne Macky Sall day continuer di fi nekk ba tey du wax dëgg moom bu amee benn bu ko naqari ci Macky Sall ñi ñi ko ñi ko ëpp naqari ñu ngi fi te seen fukki xel ak juróom-ñaar xalaatu ñu taxaw gis nga ñu ngi ñu fu ñu wër ñu koy taal micro muy wax muy yebbee ko du sottee oh. xamul ne mi ngi ko sa boppam kaam ndax ñeemu ne dafay and ak ñoom kenn dootu ko ñeme kenn du ko wóolu ndax dañu xam ne sëgam Macky Sall mi nga xam ne moo ko jëlee fee dugal ko fii daf ko mm-hmm. ministre conseiller mm-hmm. nga dugg pale di xëy dugg pale nga xale bu tuuti mm-hmm. ngay am expérience am loo xam ñu lay jàngal état man fu ma toog si àddina damay gërëm Sidy Lamine Niass fu ma toog si àddina damay gërëm almi Ndiaye journaliste lu ma doon ginnaaw yàlla ak yonenteem bi ñoom ñaar la mm. ba keroog may sàngoo suuf Sid Lamine waxna ko fi dem nañu tribunal man ak mom kenn mënul taxaw ku taxaw ci adina ming part madame fay mi ngi may deg batay mi ngi wal fajeri mennu madame fay mo meuna taxaw ak xana sama avocat man muy Abdou Dialikan met Abdou Dialikan nga xam dafa yag nek sama avocat batay moy sama avocat ñi ñoo a part tembi yalla ak yonentem bi a part Sid Lamine ñass mi ma jiitu barsàq a part madame fay mi nga xamne batay mi ngi wal fajeri dafa kilifa di sama yaay di sama lepp di sama à man mii ak sunu waa kër muy sama yaay sama rakk ñoo bokkal ndey ak baay à part Sidi Lamine avocat wa met nee na Njaay ku taxaw ci àddina mm. dégg naa dañu am fit nag ñuy wax waaye ñoo dama leen tallu loo tax man xam nga man man ku may woo ci xeex su ma la wuyuwul rek mooy euh, ma ma ma nawle. te doo bàyyi mu sedd. non du ñooñu xoolal kenn mënu laa taxaw wax la ne Aïssatou Diop Fall lii la jotee ak Sidi Lamine Niass mm-hmm. ñii ñoo ko xam. ñii ñoo ko xam te kenn mësuma dégg ndax te si daf maa defar loo xam ne mhm. rus naa taxaw mhm. man naan maa ngi defanteeg moom du ma ko def mhm. ndax koo xamante ni ba nga tekkiwulee dara sa première salaire moo la ko jox du ma ko xas su ma defee lu ma naqari sa ant dama koy bidwinas laa koy gérer waaye dem taxaw lii Omar Sow da def nii man d'accord ma si te def naa ne xam naa ne kenn d'accord si waaye Sénégal mooy dëkku seytaane boo xam ne fii maane. ñun nu wax li ma wax tout le temps yàgg naa ko wax. ñun suñu président bi muy Jomaay. pour le moment premier mandat bi maa ngi koy ñaanal nag mu am deux mandats ma loolu laa ko yéene. Mhm. man damaa ñaan ndax damaa jàpp ne Jomaay premier mandat bii le gens ont voté pour Sonko contre Macky Sall. Mhm. d' abord mooy référendum bi. waaye dama koy ñaanal moom Diomaye mu am deuxième mandat ndax mhm. deuxième mandat bi moom la moom la moom la Séné moo liggéey sénégali yi voteel ko loolu laa koy ñaanal liggéeykat la waaye dama bëgg wax ne ñun lu ñu xaar ci moom premier mandat bii xaaruñu ci moom ay ay benn benn réalisation lu dul mu tappe xol yi dàmp xol yi jubóole sénégalais yi mm-hmm. restaurer les valeurs réparer les injustices mm-hmm. loolu la ñu xaar ci moom mm-hmm. te ci réparer injustice yooyu euh, ak restaurer les valeurs bokk na ci euh, ñun duudu li nga yàgg dénoncé maa ne nga koy dénoncé ñii seetaan di ko dénoncé transhumance nañu arrêté na nit ñi doon gor benn ko fi mais xamuñu nu ko mën a changé mooy mooy li ñu commencé nii parce que tey jii seen premier gouvernement bi mm. c'est vrai yaa de jël nañu ay tête mm. waaye au moins jëluñu ay tête yu marqué mm-hmm. tey jii bu ñu fi jëloon bu ñu fi dugaloon Mimi Touré te fi tuddu ay dembo ah man man man man ka tuddu mako sama bajjan la te xam nga man dama may dara tuddu mako sama bajjan la ya ko tuddu ma ko tuddu de ma ya ko tuddu ma ne ya ko tuddu man je préfère ma yam ci ni mu tudde man wa yow ya ko tuddu man tuddu mako nak tuddu mom ma ne ya ko tuddu bu ben seytane eh, heureusement eh, dafa sa tiktok fa yaat na man ma ko seytane tuddu ma yow ya ko tuddu man tuddu ma ay da tuddu mako sama bajjan la capable micro bu ko ñiko rombu Régis indi leen ma power bank bi mu mu mu ma xeer waaye man tudd ma ko yàq tudd je préfère jël Mimi Touré def ko symbole waaw ah, Mimi Touré. <laughs> man laa gën a yab en tout cas moom de moom moom nee na ah. bunt yi kenn euh, transhumance yi sax bañ waaye transhumance yi moom jomaay moo leen dul dugalal. Mm. Sonko doo dugal ñii ñu jël. ñooñu lu ñu ay transhumant mais ñoo xawate ne mooy ay ñu Abdourahmane yooyu ñoo xawate ne mm-hmm. mais dama jàpp ne li premier gouvernement la bi mm-hmm. gouvernement bi gouvernement kii nekk la bi cuq-cuq la nii mais li am solo mooy comme ne pour revenir à et sur Omar Sow mm-hmm. euh, vraiment xaw ma ko danaa ko sama sama sama frère je l'apprécie parce que man dama bëgg ni ko am courage waaye na ni yi muy wax ci Macky Sall Macky Sall lay dooleel du wàññi boppam di di ragal loo Amadou Ba ndax nag doodu hmm. boo àndeek nit hmm. ay at mu def la li mu la def hmm. nga xëy suba di ko xalab kenn dootu ànd teeg yow am déet laa nag mi ngi may nit ñi vu mi ngi leen may ay nàngam tey comme ni ma wax dina dina mës a laal leen fenn foo xam ne leen fekk ko ci te lii loolu rafetul xale la mi ngi ci yoon euh, na rafetal na fàttaliku lu mbaax lu ko Macky Sall musa defaral na fàttali ko ne ne Macky Sall da moom dafa bëggoon Macky Sall ba tuddee ko doom hmm. doomam boobu dina màgg ëllëg te ku la tuddee doom ak ku la yóbbu màkk ñooñu bañu ñu ne doo leen fàtte mooy comme ku la yóbbu prison hmm. loolu maa doo ko fàtte eh, eh, doo ko fàtte